bisimilah rahmaani rahim euh, li ñu li bëgg a wax comme ni ngeen ko xamee wàccale micro yi micro yi euh, euh, dañuy défendre Ousmane Sonko Ousmane Sonko newul tribunal. su Ousmane Sonko ñëwulee am na lu tax te wax na ko te yéen ñëpp képp ku kuy kuy kuy noyyi Sénégal boo dëkkul Sénégal dëkk bitim réew gis nga image yi ñetti yoon yi mujj yi Ousmane Sonko ñëw tribunal bépp doomu aadama bu dund loolu mën nañu comprendre nga taxaw jël position position bi jël bi mu wax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 li ma bëgg a wax mooy da ngeen constaté que ne affaire bi dañ ko dax j'espère que bi ñu génnee amuñu ñu leen wax ne avocat Ousmane Sonko yi ñoo ñaan renvoi wala avocat Ndeye Khady juge bi ci boppam moo def sa qu'on nappel un renvoi d'office renvoi d'office maanaam juge bi ci boppam moom moo décidé ci li ko yàlla may pouvoir bi ko may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 Le, le, dossier a été appelé par le juge. Le, le, dossier, le dossier a été appelé par le juge, le juge de la chambre criminelle. Le juge a renvoyé d'office pour le motif tiré du fait que hier, Ndeye Khadindjaï a été entendu sur son identité. Parce que c'est ça ce que la loi dit. En matière criminelle, on entend d'abord les parties sur leur identité, comment vous vous appelez, ainsi de suite. Et après, normalement, le juge dit, entre l'audition d'une partie et le procès, il doit se dérouler trois jours. Donc hier, elle était, elle était entendue. On n'a pas respecté les dispositions du Code de procédure pénale si on devait retenir ce matin. Donc le juge, c'est lui-même qui a renvoyé d'office. D'accord Donc quand il a renvoyé d'office, il a renvoyé à Witten en disant audience spéciale. Mais il a également dit qu'à l'audience spéciale, de, ce qui se passera là-bas. Donc lui, il va également décider en fonction du dossier. Nous, notre client n'a pas reçu de citation ni de convocation. La loi dit que s'il reçoit une convocation, une citation, il doit venir la veille voir le greffier en chef pour dire je suis là et que je serai présent à l'audience demain. Donc aujourd'hui, on considère que le dossier n'est pas en état en ce qui le concerne. Le juge n'a pas statué sur ce volet. Le juge a tout simplement constaté que donc hier, Ndeye Khady Ndiaye a été entendu sur son identité et l'affaire renvoyée à ce matin et que ce matin, la loi lui faisait obligation de renvoyer. Vous, la défense, vous dites que le délai Non, a, on a dit au juge que si vous renvoyez à 8 ans, on est en matière criminelle. Mhm. On n'a prendre connaissance du dossier. En matière criminelle, c'est le greffe qui doit nous communiquer copie du dossier. Il y a 471 pages. Il y a plus de 50 avocats qui sont constitués de toutes les parties. Comment, en une semaine, le greffe va dupliquer 471 pages, va dupliquer les, les clés audio et va dupliquer également les clés vidéo pour nous les communiquer. les gens doivent être à égale distance et il doit y avoir un même traitement juridique. le 23, Ousmane Sonko Tout dépendra de ce qu'il recevra. S'il reçoit sa convocation, nous, avocats, nous lui conseillons de venir. Mais il décidera. Parce que Ousmane Sonko, vous l'avez entendu, il a fait une conférence de presse, il a dit pourquoi il, a, il y a la désobéissance civique. Parce que tout simplement, ses droits ne sont pas respectés. Voilà une personne qui n'est pas libre de bouger quand c'est pas normal Ndeye Khady Ndiaye a comparu ce matin hier elle était là personne ne l'a encadrée personne n'a bunkerisé chez elle elle est venue hier on l'a entendue elle est partie tranquillement chez elle son Sonko est venu ici lors d'une confrontation il a été entendu il n'a pas été brutalisé il est reparti quand il a été entendu par le juge d'instruction au fond il est venu volontairement on l'a convoqué il est venu donc il n'a jamais refusé de venir mais les avant Sa maison est bunkerisée, le quartier est bunkerisé. Chaque fois qu'il est convoqué, arrivé à la selle de Mermoz, il est brutalisé. On casse les vitres de son véhicule, on l'extrait, on le met dans un fourgon. Il a même fait une tentative d'assassinat. Et tout ça, vous voulez maintenant dire que sa sécurité est assurée. L'État du Sénégal, nous, c'est nos sous, avec nos sous que l'État du Sénégal assure la sécurité. Et votre sécurité n'est pas plus importante Qu'ils qu se le disent, Antoine Diom, qu'ils se le disent, ils ne sont pas plus sénégalais que nous. Ousmane Sonko a les mêmes droits que vous et moi. Antoine Diom n'a pas plus de, de, de, droits que nous. Macky Sall n'a pas plus de droits que nous. C'est avec notre sou qu'on protège tout le monde. Ousmane Sonko n'a jamais refusé de Il a dit, voilà les conditions pourquoi je fais la désobéissance civique. On essaie de m'humilier, on essaie de me violenter, on banquerie chez moi, ma, mes femmes, mes enfants ne peuvent même pas sortir, mes voisins ne peuvent pas sortir. Mais je l'ai toujours dit, laissez Ousmane Sonko, ne banquerisez pas chez lui, laissez-le venir au tribunal, il n'y a pas de problème. Si Dieu lui a donné une popularité pour qu'il vienne ici, mais il faut se souvenir que Macky convoqué à, la DIC, avait fait drainer du monde, qu'il avait accompagné. Abdoulaye n'avait pas personne, et il Et pourtant, aujourd'hui, on veut changer les données. Ce n'est pas normal. C'est -ce pour cela. Vous avez, vous avez tous les documents Physiquement, le, tous les documents. Tout le dossier, on ne l'a pas. 471 pas. des audios en plus. Parce que tout simplement, on était à l'instruction. Quand on à l'instruction, vous ne pouvez pas faire la copie d'un PV tant que le juge ne vous autorise pas. l'a dit chez Khouressi, le dossier a été longtemps séquestré. Personne ne pouvait avoir Les juges qui m'entendent, ils savent de quoi je parle. Les juges d'instruction, le procureur, ils savent parfaitement qu'à un certain moment, même le juge qui est décédé nous disait qu'il amenait le dossier chez lui pour la, sécurité. Donc quand un dossier n'est pas là, comment un avocat peut pouvoir passer consulter le dossier Merci. Donc c'est pour vous dire, la dernière audience ici de renvoi dans l'affaire Meignan, moi j'étais là témoin. On a renvoyé le On est venu, on a dit le dossier est renvoyé. Ousmane Sonko a voulu rentrer chez lui. Les gendarmes à la porte ont dit Ousmane Sonko, il faut présenter le certificat médical. Comment vous pouvez concevoir qu'un gendarme prenne la place d'un juge pour dire Ousmane Sonko, vous ne sortez pas tant que vous ne présentez pas un certificat médical Ahmed Aydara m'entend. Il était là à se battre pour qu'on lâche Ousmane Sonko. Moi-même, j'ai subi des violences ici à cause de ça. Et a fait appeler

voilà Youssoufa Camara. voilà euh, kaddu yooyu moo nekkoon euh, kaddu maître euh, Youssoufa Camara bokkoon ci avocat bokkoon ci avocat Ousmane bokkoon ci avocat Ousmane Sonko yi donc loolu la wax moom nee na avocat wala boog kiyam kiyam lu mu tuddati client am muy Ousmane Sonko pare na pour ñëw pare na pour voilà euh, li tax ba ba du mën a ñëw moo nekk nii euh, sécurité am euh, wul donc loolu moo tax mais mais bu sécurité bu sécurité am assuré rek dina dina mën a ñëw pour ñu déglu maître bambasise bokk na ci avocat Ousmane Sonko yi. on pense qu'il sera là. C'est dans l'ordre de l'éventualité.

Euh, le fondement de la défense de l'avocat, c'est aussi la présence du client. C'est pourquoi nous, nous, avons incité notre client euh, dans ce sens-là, mais à condition que sa sécurité soit préservée, parce que c'est un Sénégalais qui est libre de ses déplacements. Les brimades doivent cesser, les barricades doivent cesser, euh, le traçage d'une voie pour qu'il passe là-bas doit également cesser. Le plus important, c'est qu'il soit là à l'heure de la convocation, et, et je pense que de ce point de vue-là, c'est acté. Maintenant, on avisera pour la date d'audience pour voir la posture euh, de la défense. Mais la défense a tous Pas, du tout, il nous manque des éléments. Il manque des... il parce que le dossier est au greffe, mais il y a des, des vidéos, des clés USB qui manquent à, la procédure et qui doivent être euh, éventuellement euh, produites à la prochaine audience. Alors, nous n'avons pas le contact pour l'instant de notre client pour déterminer son état d'esprit, mais on l'a toujours connu serein. Euh, li ma bëggoon wax rek mooy wax nañ ko sànq euh, Ndeye Khady ñëw na euh, déglu nañ ko kenn yóbbu ko kaso li ñuy xaar mooy Ousmane Sonko bés bu ñëwee c'est dans l'éventualité bés bu ñëwee kenn bañ ko ñu ba mu am le même traitement maintenant li taxoon Ousmane Sonko am position boobu avocat yi wax nañ ko da doon ñëw ñu koy téye di téye otoom di ko barricader di ko dugal fii di ko génne fii di ko maltraiter loolu moo tax ñun ñu comprendre également position am mu ne man duma ñëw dans ces conditions donc damay opérer li mu naan désobéissance civique parce que mënoo ñëw ñu war la yóbbu tribunal euh, nga war dem tribunal ñu yóbbu la par force toj sa otoog yooyu loolu day indi nit ki day xaw a bañ day rasu te loolu comprendre nañ ko mais bu doon suñu sago aussi bu ñëwoon dina baax parce que ñun xam nañ ni on a un bon dossier donc loolu laa bëggoon wax rek je pense que confrères yi wax nañ ko ba pare. bu ñu respecté àq ak yelleefam dina ñëw ci tribunal bu ñu respecté man je ne vois pas pourquoi mu bañ a ñëw dina ñëw. mais bu ñu ko bëggee barricadé bëgg ko dóor di ko sonal di ko kii bu ko day am benn rasu bu muy rasu. parce que loolu nit loolu rek la am amu ci njàqare amu ci mais mën na ne mën na ne mais dañu jàpp ni Ndeye Khady ñëw na kenn téyewu ko donc pourquoi Ousmane Sonko di ñëw ñu koy téye mooy li ñu doon wax rek pourquoi chaque fois mu am un traitement particulier pour Ousmane Sonko loolu la ñu mus a dénoncé jërëjëf jërëjëf merci